si foofu lañ jëm si diineeg si aar Sénégal ak yëpp gisoon nañ ko daaw mars bi moom heure bi fekk na Sénégal moo ngi tàng. ren jii presque am na un an. bi ma koy wax newoon naa leen gën a naa ci si la ne leen man soxna Awa Fall maa ne. ku tëj Sonko. ñu ne waa man a deret dina tuuru ay xale yu bari dinañ dee. barke Sëriñ Bamba mais mais mais dafa naan mais da ngaa man waxaguma sax nga tuur nga xam ne fu ma jëm. damaa xam fi nga jëm damaa xam fi nga jëm. ba ma ba ñu ne ko tëj Mhm. maa njëkk génn ne leen ku ko tëj déw ma tàkk te gisuma tëjam te kenn du ko tëj maa wax loolu te bés bu ñu laalee Sonko wala ñu jëm dara ci Sonko réew mi dina tàkk man soxna Awa Fall maa ko waxoon dara dina bari li ma gis la xool ko gis ko génne woon naa ci waxoon naa ne ñëpp génne sarax te boobu temps génn naa woo gars ñu ñëw man na nag ku ci jigéen a génne sarax ku ci góor na génne sarax ku ci oyof bopp yaay am problème man waxoon naa ko maanaam da nga ko seet gis ko wala da tëdd su guddi maanaam affaire yi ñëw woon dara wala xaw dara doo ma woo fii dëgg neexul. waaw waaw dégg say sa riir kay moo tax. kay dama ne su ma mënul woon dara xaw ma dara doo ma woo fii. kii ku xamul dara amunoo dara doo fi toog. dëgg neexul lu ma gis la. te du ma gis lu ne dama ciy dut sama baaraam man soxna Awa Fall. Mm-hmm. ci jàmm laay dox ci yoonu saatal mustaqim bu ma koy tooñ. mais histoire bi tamit dafa mel ni moo ngi yeewaat par exemple gis nañ Adji Sarr génn dem si journal journal yoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi extérieur Sonko tamit génn na. Adji moom li koy xaar di mi ngi ñëw léegi Adji Sarr. Mm-hmm. xale la boo xam ne xale bu doy waar la. ah li ko xaaroon gisu ko. riir mu amoon doyu ko. moom nga génn ci réew mi mënoo génn. nga gittoo ci réew mi bu ma profité danga ma naan tekk déglu ma. nga juddoo ci réew mi. mais du ma laaj. di ma laaj mais ba ma joxee question danga naan tekk déglu ma ba ma pare. mais mais ni nga wax juddoo ci réew mi maa ngi ñëw nga juddoo ci réew mi màgg ci réew mi te ñeme dem ba ñeme too génn ci réew mi eh li la daal loolu foor na dangaa dangaa teg sa bopp te kenn tëju la emprisonnement mënut a weesu loolu teg nga sa bopp te kenn tëju la kon dama waxoon am na. mais mère Aïssa jigéen la. soxna woo Fall muy jolli son awa faal jigéen na jolli nga war a jàppale sa sa sa jigéen bu dee jigéen te taxawul taxawaay jigéen man de keroog rus naa doonub jigéen ci kaw na mu def ndax xale bu jigéen bu tuuti mën a génn taal réew ba ay nit dee ca boobu boobu boobu boobu jigéen man nawlaw ma ko mais yaa ngi accusé de ma ne moo wax wax ja ba mu waxee wax gi la dëkk bi tàkk te bu dëkk bi ba dëkk bi tàkkee xale yi dee nañ ca ñi ca gaañu gaañu ñu am ñu am ñoo xam ne jëlee nañ ci ay handicap te doon ay xale yu mat yàlla bindi leen tànk loxo napp bakkan baat bët gémmin tey amuñu loxo. mais ku lox tooñ ñu ko. kan la ñu tooñ. ay saar ku ma lox tooñ ñu ko. kenn tooñu ko dama ne. kenn tooñu ko. waaw sa sa dinañ la ko wax ma ne. kenn tooñu ko. foo ko teg. fi ma ko teg fu wóor laa ko teg.

Sonko lu mu def moom lañ diñ viol bi ma ne ki toog naan dañ ma violé tey. violé waat ma violé waat ma violé waat ma kon da koo neex. violé kay benn yoon lay doon ñu xam ne ah waaw waaw yaa ma violé violé waat nga ma violé waat nga ma ña ba ñaata yoon ah yooyu eh, looy bamti bamtuwaat kon dalaa saf dalaa neex dëgg neexul eh jigéen la ñu ñun xam nañ nu fa demee.